pense que ci jàmm jooju. Mhm. laay li ñu ciy njëkk a wax mooy fi ngeen commencé. Mhm. parce que Sénégal tey bu ñu toogee. Mhm. ba nga xam ne mën nga jóg dem marché sa xel dal. nga jóg yónni sa bu am 10 ans sa xel dara du ci ñaaw. nga circuler lu mu la neexee nit ñi di demante dikkante duñ fi dégg. vraiment insécurité boo xam ne. jar na tax ñuy wax insécurité lu dul effectivement des faits yoo xam ne si inné à toute société mm-hmm. d'agression ainsi de suite donc suñu amee sécurité boobu c'est parce que dafa am ay gendarme ay militaire ay police ay yoo xam ne ñoom ñooy assurer suñu sécurité mm-hmm. comme la sécurité intérieure comme aussi la sécurité extérieure à partir de nos frontières mm-hmm. c'est parce que dafa am aussi derrière une politique de sécurité boo xam ne état du Sénégal par le président Macky Sall qui est conscient les enjeux sécuritaires du la sous-région dafa graaw ba nga xam ne mun na entraîner benn insécurité nationale donc ñu jël motuwaay yi nga xam ne jël nañ ko en termes de politique et en termes de dotation de moyens donc la paix n'a pas de prix mm-hmm. te kii njëkk am responsabilité euh, liggéey ci li nga xam ne mooy jàmm ak paix mooy ki nga xam ne moom lañ jox réew mi muy le président Macky c'est am na ay appel de paix yoo xam ne kilifa diine yi ñu ngi koy def mm-hmm. mais suñu constaté ne jamono ji bu ñu demee ba nga xam ne kilifa diine yi tey dem nañ ci cérémonie yu mel nii nga xam ne effectivement mënoon nañ euh, bañ a euh, yedd ñenn ñi boo koy def nga xam ne tey dafa am lu bees lu am Mamadou Dia am na fii Senghor nekk na fi Abdoulaye Wade nekk na fi Abdou Diouf nekk na fi y a des opposants yoo xam ne c'est des opposants dans le temps yu gën a virulent mais discours bi ngeen dégg opposant taxaw di ko wax mu discours bu radical et appel à la violence bu mos am Sénégal je pense il faut dès à présent ñu pointer de doigt du doigt ki nga xam ne moom mooy appelé à la violence. mais euh, ça c'est un premier thème. honorable euh, euh, dogguma la foofu sa yàlla bu la yàlla dog mais aujourd'hui quand on parle de ça euh, tey bon suñ la déggee. xam nañ à peu près fi nga bëgg a waxee mais aussi bu ñu ni que tamit que ça soit aussi le côté pouvoir bi tamit ils sont pas dans le discours de jàmm aussi ah ñoom aussi suñ leen woowee ci lii ñu fekk si leen fi alors que xëy na amoon na neneen noo xamante waroon nañ ko mën a doxalee. on a entendu le ministre de la de la jeunesse euh, Ndour ah euh, mi ngi na Pape Malick Ndour euh, son discours aussi donc du coup c'est pas seulement l'opposition non xam nga dama la doon wax li nga xam ne mhm. pour man ak la majorité des Sénégalais jàpp nañ ne ñoom ñoo bëgg a indi la la violence ci biir Sénégal et l'instabilité bu ma weesoo foofu mhm. mais damay wax ne il plusieurs acteurs au Sénégal nous sommes des acteurs politiques mhm. parti d'opposition mun na am ses activités politiques ak ses ses, ses organisations politiques comme APR mun na ko am mais au-delà de tout ça dafa am li nga xam ne moom mooy régir loolu yëpp c'est l'état du Sénégal et l'état du Sénégal au premier chef c'est le président de la République ce sont ses institutions yow la man la keneen la donc ki nga xam ne moom moo nga xam ne moom lañ dénk réew mi li mu war a def mooy jël matuwaayam yépp ba nga xam ne dina ma protéger dina la protéger dina protéger samay bien dina protéger say bien ba bañ kenn bugg quelles que soient ses ambitions ak sa volonté personnelle mu jéem a indi dal ci li nga xam ne moom mooy instabilité ko donc loolu mhm. pour ma pour dire que c'est peine perdue pour man parce que jàpp naa ne lu ñu am société boo xam ne euh, bu fekkee ne am nañ aussi di ñaan jàmm di gis volonté bi nga xam ne état bi def na ko ak jàmbaar yi man je pense que aussi am na lu ñu am mooy euh, benn société bu am cohésion benn société bu am pluralité benn société aussi bu am ay kilifa diine comme ay kilifa aada comme aussi ñoo xam ne euh, je pense que jikko bi nga xam ne am nañ ko mais c'est au-delà même de nos religions. d'accord parce que dañoo jógee. ci ay cosaan yoo xam ne avant ñuy ñu ñu ñu ñu ñu convertir à à la religion Alaaji Asan mais mag ñi dafa am loo xam ne dañ ko defoon ci sénégalais ba nga xam ne seen comportement ak seen waxin dafa am nu mu tëddee donc loolu yëpp tax na ba nga xam ne gëm naa ne amul dara lu mun a yëngal Sénégal parce que l'écrasante majorité des Sénégalais muy l'État muy les institutions muy les populations ku ci nekk contre la violence et ku ci nekk aussi se euh, battra contre cette violence là. donc je pense que loolu la gis ne vraiment c'est pas une menace très grande mais il faut prendre des dispositions.